asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñii ngi dellu si waat eh, ci liggéey bi ba tey rek eh, ñuy dalal suñu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal liggéey bi eh, sama càmmooñ sëñ Ablaye Diop mi nga xam ne kenn ci ñi jiite kuréel yi la bokk sëñ ma Matar Diène tamit di kenn ci ñuy jiite ci kuréel ci njàng mi ak sëñ du Joxaane ñun la ñu bëgg àndaat ak ñoom rek diñ ko defee woon ngir waxtaan ak yéen rek ci ni nga xam ne noonu la ñu ànde dund gi ak dundal gi ci lii nga xam ne mooy ndigal Cheikh Mountakha muy njàngum xasida mi nga xam ne moom la digle ñu fas yéene ko def ni mu ko bëggee am ci lu ñu kawe suñu njort ndax moom kat yéene ñu yokkute moo tax mu def lii mu def kon loolu tamit day mel ne fursa la boo xam ne kenn du ko rëcc ma bëgg jox kon suñu mbokk taalibe yi ñu wax ci ñoom itam loolu nan lañ ko dundee ak fiñ ci toll. jërëjëf sëñ Mansour auzu billahi min asheytaani rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min asheytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun allahumma salli ala sayyidina muhammadin ummi wa ala aalihi wa sahbihi wa xadiimihi wa sallama tasliiman gannaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko siyaare di siyaare mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gi fi teewoon ñëpp ñuy sunu kilifa yi sunu kilifa yi yu tedd ñëw ñëw ànd ak ñun liggéey bi ba ba ba ba ba ba ba lépp mat loolu di tawfeex ju rëy ndax ñun amuñu dul xasida yi ab murit moom xasida yi suñu laat nee noon mooy suñu kerkeraan mooy escalier bi ñuy yéegal suñu digg ak sëñ Tuubaa kon kon suñu suñuy kàddu kàddu yi cant rek la mooy gën a ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te ndax nii mu ni ni nii gone yi jubloo xasida yi nga xam ni lépp ak jubloom la ndax borom jamono day def Lum mu bëgg rek yalla fekk ko suñu borom da koy fekk ci kon da bëgg ndaw ñepp muccu ndaw ñepp muccu te taxé teeg ak ëlëk motax mu xërñu ci liggéey bi di ubbi ay buntu ay buntu ngeenel ci jotaay bi ci bokku ci yoy jotaay yo xamni lepp lepp tawfiq rek la ak yokute ak ak mucc ak ëlëk kon jëf Cheikh Mouhamadul muntaha ak seigne touba gep yëpp alaykum wa rahmatullah jërëjëf xanaa dañuy dolli yeneen kàddu rek jëmee ko ci sëñ Modou Diakhané sëñ Modou dañ ci sànni ñaari kàddu rek ndax defe naa liggéey bi benn la defe naa li sëñ Matar rok buñ la bàyyi woon nga wax ko tamit waaye du tee nañ jaaraat ci kàddu gi kon bisimilah barke Serigne Touba man moom samay kàddu kàddu kàddu sant rek lay doon toftal ci li sëñ Mokhtar jenn wax dañuy sant Serigne Touba bu wér sant Cheikh Mountakha Mbacké ci ndigal li nga xam ne euh, jox nañu ko mu boolewaat ñu tey liggéey bi gën a am jëmm gën a taaru te loolu moo ñu ko waxoon euh, gën a am doole te ànd ak ngërëmal sëñ Tuubaa kon sëñ bi mu amuñu payam li ñu man rek mooy sant ko euh, di ci bég lool ak itam mbokki taalibe yëpp yëpp yëpp yëpp mbégte bi ma am am nañ mu ko raw euh, ñun ñëpp itam soobu nañ ci ndigal li kenn desul kon nag lañu man rek mooy di sant sëriñ Tuubaa bu wér a wér a wér muy sëñ Muntaxa Mbàkke mii di ñaan sama borom yàggal ko fi ndax lii mu def nii euh, murid yëpp a ko bëggoon maanaam xol yëpp nangu nañ ko euh, di ko ñaanal rek moom itam liggéey bi mu sëmbal mu mu mu mu mu am ci ndam ci daraje sëriñ Tuubaa kon daal bég nañ lool lool ci taxawaay bi bég lool ci murid yi euh, gone itam ni ñu nga xam ne noonu la ñu def ci xasida yi comme ni ko sëñ Muxtaar waxee loolu moom euh, du doon loo xam ne maanaam lu ñu war la waaw ah, lu ñu war la ndax sëñ tubaa moom xam nañ ne gëm ak topp ak yaakaar ak wóolu loolu seen laat moo ñu ko wax sëñ tubaa rek la ko murit mën a def mun mënuñu ko def keneen yaakaar murit tam mën naa dalee fu ne bërëngu waaye bëgg say sëñ tubaa ci lay yem kon ñun amul lu sëriñ tubaa kon ndigal rek lañuy ñuy wooyee lépp luñ ñu digal euh, danañ ko def ñun alali sëriñ tubaa lañ kenn moomuñu ko dul sëñ tubaa Eh, kenn du sun deugante digganteeg sëñ Touba kon loolu ñu ngi ciy sant bu wette te seigne bi dañ ci dimbalé mom seigne muntaha yalla na fi yàgg loolu te jere jeuf xala ma jox seigne Ablaye mom itam mu doori ci yenn cadre rek ndax ñom itam bokk na ci ñi nga xamni ñoo ngank liggey bi ci walu njàngum xas léegi seigne Ablaye nga sanni ci wat ay cadre rek ci ndigal li ak tawfiq gi nga xamni seigne muntaha defal nañu ko ci jotaay bi ñuy am ak mom bis bu ne bismillah bak seigne Touba seigne Mansour ñu ngi ziar ñep tay ziaré mbokk julli yëpp ak mbokk talibé te jiital si ñaan gi eh, Cheikh Mouhamadou Mountakha muntaha yalla fi yag lo ta ndak ak ba lepp lu mu na liggéeyal ko serigne Bassirou ak serigne Touba ma agal ko kaw ndortam li nak yakarna eh, ak cantal la moy eh, dañ ñoo dimbali gannaaw dañ ñoo dimbali nak te ki fi nek serigne Touba nga xamne sa su djublom lu mu bëgg rek su borom da koy dogal kon nak li mu boole njabot serigne Touba yépp di dundal weeru koor di koy dundal si alxuraanul karim di koy dundal si xas xasaay di yaakaar naa ah, daf ñëw jomb kon nag buñ si bokkee rek ah, téye gi ak fonkeel gi war nañu gën a sóobuwaat ah, gën koo fonkaat kon nag ñuy soññaat mboolem kuréel yëpp mel ko sëñ Matar waxee si mu Modou Joxaani suñu jëriñ waxee ko kon noonu la ñuy fafee ànd ak ñoom di di wax di wax mboolem jànkat xasida yi nga xam ne eh, eh, eh, lépp luñ bëgg rek xasida yi mi ngi si te fas yéene ne ànd ak euh, ñii suñ jëriñ nekk si yoon bi ñu boole ñoog liggéey bi nga xam ne lépp lu luñ si wax rek nga xam ne ndigal li mooy jëfe euh, liñ si tere tamit mooy mooy suñ ndam na santaat bu baax rek euh, lépp lu ñu mën a wax rek ak kàddu cant lay doonaat ndax jataay bi lii ñu am jomm nañ ñoo ginnaaw nit ku la jomm loo nga am jomm na la rek lépp loo mën si pas-pas ak téyoo ko ak fonkeel gi war ngeen koo defaat kon nag si programme bi tamit yaakaar naa Euh, suba kuréel euh, régional bu Dakar mooy wóyale liggéey bi ànd kook euh, ni nga lan daan rek ginnaaw takkusaan jërë ngeen jëf. waaw jërëjëf ko def na ni kàddu yoy mom lañuy ñuy jotaay tay bi di juroom ñaari fan ci weeru koor xana ñu teunkel rek ñi nga xamni ñoo ñu top ñu xamni ce sont des interventions de quelques responsables de la Dar Hizbut Pierre, qui ont à charge n'est-ce pas le pilotage et l'organisation la prise en main de la déclamation des xasaïd de Cheikhoul Khadim le programme qui est aujourd'hui euh, déroulé est entre leurs mains. Il a, un il a fallu un travail d'approche qui a été fait par eux pour euh, revisiter les mélodies, pour choisir les courelles qui seront à l'œuvre, pour faire la sélection, pour faire la programmation. Mais c'est un travail ardu qu'ils ont, qu'ils ont fait. Les gens ne voient que cette partie visible de l'iceberg, mais il y a en amont un travail colossal qui est fait et qui fait donc qu'il y a une proposition chaque jour de courriel, mais qui rivalise de dextérité pour proposer au calife ce pourquoi en tout cas il est présent et nous prions ardemment pour qu'Allah lui accorde une longue vie et une santé de fer. Tous les trois regroupent leurs propos sur le crédit, le tribut de reconnaissance qui nous incombe vis-à-vis de Serine Touba et il en est ainsi, il en sera ainsi jusqu'à la fin du mois de Ramadan. À bientôt dans un autre numéro. ngir ngay man vidéo yi am solo yi ci Xidma production da ngay fi ñu bind sabonné production la scène du mouridisme.